Daouda maa ngi lay nuyu di nuyu sa équipe euh, di nuyu waa Public SN di leen ziar bu baax a baax ak mbokki internet yi. ndeket Tata bu Guinée Plateau ci léegi na mool quoi. <laughs> Daouda da ngay tooñ waa gis nga xam nga boo firee rek euh, nga bañ am benn stress donc euh, loolu loolu force la loolu loolu da dimbali ci sa nekk da dimbali ci lépp looy dugg te man moom vraiment kenn du ma teg lu ma lu ma lu ma lu ma àttanul. <laughs> tey di journée mondiale de la presse donc euh, fi Sénégal noonu ñu jëloon euh, soixante treizième ñu wàcc ba cent quatrième position donc min instant bi kon on a fait une grande dégringolade en tant que communicatrice en tant que ku nga xam te mi nekk ci média bi yàgg na macha allah ba nga déggee loolu tey lan la lan la sa xel ci lan la njëkk a dem. waaw man nag euh, Daouda euh, d'ailleurs maa ngi euh, souhaiter presse bi yëpp une très bonne journée mais Daouda man macha allah 99 laa dugg ci presse j'étais à la radio Oxygène j'ai fait huit ans là bi ma fa jógee ci laa ñëw Walfadjri ñun bi ñu nekkee Oxygène man man man accueil laa fa duggee woon accueil après ñoom Ababacar lii Omar Seck Ndiaye ak waa administration xam nga ñoom dañuy gis ay potentiel yoo xam ne yu nekk ci yow yoo xam ne yow doo ko sax xam yow mii nekk euh, ma daan def communique yeeg yooyu benn journée 8 mars Jacob Ndione yal na ko yàlla yërëm euh, di papa ci Alima Ndione mii bu Zik FM euh, Jacob ni tey jigéen ñi ñooy wax ñu ni ma kay jël antenne bi comme ça ma dugg animé ko naturellement spontanément ma def ko et euh, mu passé après ñu jox ma fa ay émission yooyu mais mais mais Oxygène c'est une école boo xamante ni man mën naa ni quatre-vingt-dix cent li nekk ci man moom moo ko fa def parce que on avait un directeur muy Omar Seck Ndiaye boo xam dafa stricton Omar Seck Ndiaye da nga daan gis nit def erreur à mu ñëw jàpp sa yére génne la en direct nit di corriger nit ñi foo ko defee rek mu corriger la et puis boobu dafa sérier woon boobu dafa sérieux woon mais léegi presque bi moo moo bari laisser aller franchement euh, sature na ku nekk yaa ngi ciy dugg yaa a des brebis galeuses ku ci nekk ngay wax nu mu la neexee defee nu mu la neexee mais loolu yëpp xam nga lan moo ko indi wut buzz li ñu tuddee buzz man je suis contre l'effet du buzz man man wutuma buzz ni rien xam man lan laay wër sama conscience li may may ma wax ko te bu ma tëddee ma nelaw wax loo xamante ni damaa dëkk ci dëkk bi fi am fi yaay am fi papa am fi ay ba pare Sénégal la ñu nekk ñu nekk ñu Europe nekk ñu États-Unis on a nos réalités dafa am loo xamante ni man Betty je peux pas me le permettre ci télé wala ci rajo. wax nga ko léegi léegi ku jóg ubbi sa site ku jóg dugg ci média bi ci ci ci ci ci milieu bi euh, lan la xanaa lu tax Sénégal est-ce que nekk dëkk bi moo dëkkal wala liggéey amoon wala dañu yaakaar ne comme ni ma sànq buzz bi moo xew quoi. waaw <laughs> loolu nag boo ko gisee avec l'arrivée du net au Sénégal loolu moo gën a yokku. mbir moomu parce que tey jii benn béti day nekk ci roqam ubbi euh, chaîne YouTube am di ca verser lu ko neex boo seetee lu yu bari yoo xamante ni ça passe à la télé dañ koy verser ci internet bi moo xam baax na moo xam baaxul internet bi joué ci lu baree baree baree bare li yàq internet li yàq presse bi internet bi joué ci da gis ñoo xamante ni sax la ñuy def ci internet bi moom la ñuy bëgg ñëw transposer ko à la télé bokkul il faut savoir dissocier les deux télé dafa am public internet am publicam mais nit ñi nag malheureusement mënuñu dissocier ñaar yooyu et et c'est vraiment domage yàq yàq milieu da ngay gis ñoo xamante ni man man man nangu naa ñu former la sur le tas nga ñëw am lu nekk ci yow ñu yee ko nga nga def sa liggéey nu mu waree bari na ay journaliste fii tey yuy wax Sénégal wala yu siiw Sénégal man maa leen dalal oxygène am ñoo xam ne ñoo ma dalal oxygène mais ñooñu am nañu benn formation de base boo xamante ni boo leen xoolee di nga xam ni ñii yu bari duñ ko def wala duñ ko wax. Ah, euh, man ba ma yàggee suivre yàgg na seetlu que xale la mais yàgg naa suivre macha allah à travers ataaya mais toujours nga resté sa constance def sa liggéey simplement xam nga doo trébucher macha allah c'est quoi cette force et puis c'est quoi cette longévité waaw xam nga euh, peut-être presse bi dañ ci teel a dugg dañ ci teel a dugg. Euh, mais nag euh, toujours ñun bu ñu toogee dañuy sóoraale yaay dañuy sóoraale papa dañuy sóoraale toute une famille boo xam ne tey jii boo waxee wala nga def na ko sudul noonu ñoom dinañ am lu leen naqari liñ naan man doomi ndar laa xaw ma wax ju ñaaw waaw man man man xaw ma wax lu ñaaw sama maama ma yar donc muy loo xamante ni ñu ci bari tey ñu nekk ci presse bi amuñu loolu wala boog am nañ ko mais boo waxee ñun la kër gi kër gi la sama liggéey sama liggéey la man nag bu may bu may bu may def mm. yaa ngi koy wax mm. man man man Walf gi bi ma fi ñëw def naa fi neppaat musical def fi ataaya def fi te ban ma koy jox ay Aïssatou di dem boobu du ñëpp la ko président jox wax dëgg yàlla euh, parce que Aïssatou defoon na ci loo xamante ni pour remplacer Aïssatou du doon luy yomb donc muy loo xamante ni man dama koy sóoraale xëy na aussi sutura yàlla la euh, euh, loolu la mais man xooluma buzz xooluma ku ma dagg dugal ma internet xooluma lu neex nit man li ma sama conscience jox noonu laay toogee noonu lay liggéeyee xooluma ci kenn. ci ci ci kër gi la maison avant ñu jeexal entretien bi euh, macha allah ku wax presse wax liberté ku wax liberté wax na fii ngeen nekk fii ci wal Walfadjri yéen <laughs> dañoo dañoo état bi dañ dañ jàpp ba dañ takku baat ci seen <laughs> dañ takku ci seen baat yi ñu baax ma ci kàddu gi ku wax rek ñu jàpp tëj. ah Liberté Pëkki Pape Ndiaye macha allah ñu koy ñaanal yàlla génne ko fële ak Thioro Mandela la sister d' abord ñu wax ci côté côté Thioro Mandela mu nekk jigéen jigéen jigéen wérul man je ne dis pas doon def sax loolu c' est pas mon mais en tant que femme d' abord mu nekk jigéen gu wérul est ce yoon la ko di ko tëj. mu nekk jigéen jigéen bu Coro mm-hmm. euh, Coro Diouf euh, moom moom sunu sunu collège la mais ma koy ñaanal fa mu nekk yal na yàlla teg ko loxo yal na génn léegi jëm ci ay njabootam Pape njaay aussi moom suma frère la suma xarit la ci biir kër gi dama ndar-ndar sax laa koy woowee parce que jabaram euh, elle est de saint donc muy ñoo xamante ni on a de très bonnes relations amul benn animosité suñu diggante yal na leen yàlla génnewaat ñu dellu si seen njaboot mais Coro comme li Euh, grossesse bi li ma wax rek dama toog suñu kër ma ne sama yaay xolal man miy liggéey ak coro euh, xaw ma woon ni sax mu ngi en état de grossesse il a fallu que problème bi am pour ma xam ko ma ne ko parce que coro li ñuy gisee des fois du bari mais mais mais daal metti na ba fu metti yem boo ëmbul defoo dara sax kaso doo dañuy wax kaso doo ko doo ko yéene sax sa noonu boo xam ni sa noonu la waxatuma laa jigéen joo xamante ni mu ngi toll ci en état de grossesse très avancé euh, dama koy ñaanal parce que loo mënul dara ñaanaat clémence ñaanaat clémence waaw nañ ñaan rek am na ñoo xam ne bëgguñu dégg moo ñaan bi mais nañ ñaan rek parce que am na benn benn situation booy toll ñaan rek moo fa sës boo ñaanee suñu borom ba pare nga ñaan kii maye fii ci eh, mun ñoo jaaxal te waxuñu ci ci sa xarit macha allah suñu patron ah suñu boss <laughs> macha allah ah, maman Aïssatou Diop Fall bu borom eh, public SN sànq eh, si kulisi nee nga ma yéen am ngeen relation yoo xam te relation yu fàttali kii fraternel la macha allah d'abord sa ci moom Aïssatou Diop Fall fii ci kër gi moom moo ñu dalal parce directrice des programmes. mais nit la koo xamante ni liggéey mën na ko booleek nit ngeen xuloo xeex bu ci paree pare na ci man boog li ma fi nekk heure boo déggee ni jàppante naag nit rek ci mbirum liggéey la ci li ma fekkee boobu ci li ma fekkee et puis nit la koo xamante ni elle a un esprit très ouvert lu nu war a def Aïssatou dina woote réunion xelam bopp boppam xelam rek du ko doy mais dina woo ñëpp ku ci nekk nga wax sa xalaat ñu xool la ca baax ñu ëmb doog def li ñuy def et loolu c'est pas donné à n'importe qui am na ci nit ñoo xamante ni seen xelu bopp rek la ñuy demee et loolu c'est pas bien pour liggéey boo nekkee ak euh, une équipe da ngay bul xeeb xalaatu kenn ku ci nekk rek laaj ko xalaatam et loolu force ay satu la waaw te mu nag placé woon ci man ak ci ñi fi nekkoon benn confiance boo xamante ni bu ko neexoon ko ci parce que nag jamono jooju nag bëri na doole wal fajri wax dëgg yàlla gis nga nit dangay wax li nekk jamono jooju noo jamono jooju moom bëri na doole trop wal fajri te dañ koy wax te ñi ñuy déglu di seetaan dinañ xam ne man li may wax dëgg la waaw kañ kon Aïssatou maa ngi lay nuyu mu nekk koo xamante ni kuy ñëw fii sax am na keneen ku fi ñëw temps yële passé mu ni ko boo demee ci béti xam nga loolu loolu loolu dafa neex waaw Aïssatou maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm waaw di ko ñaanal jàmm. ne la nga ñëw nag nga ñëw toog ci plateau yi def lu garaaw. toogal la mu ñëw ah man ma ñëw. waa dinaa ñëw incha allah dinaa fa ñëw non Aysatu moom boo ma ñëw moom moom moom sama sœur la dañuy gëj a gisee gëj a déggoo mais nit ku baax la en dehors du travail ci liggéey bi gaynde la mais en dor du travail nit kese la man xam naa loolu parce que man du ma nit lu ma xamul ay maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla suñu borom yokk ko. bonne fête. waaw mooy bonne à vous bonne fête ak euh, suma siste bi euh, ak Fatimata ak euh, Masali Masali <laughs> l'équipe maa ngi leen di di leen nuyu di nuyuwaat encore une fois. Public SN ci njiitalu Aïssatou Diop Fall di leen ñaanal yàlla suñu borom yokk leen